bon mbokk ñu seetaan seen seen Dialaw TV asalaamaaleykum tey ñu ngi fii si yéen géej si kër Moussa Amady daal Dir dans le cadre di final du tournoi Yéen Dialaw a Sport bi nga xamante ne monsieur Jules Rosa Faye moo ko organisé. moo tax ñu ñëw fi pour def ak moom interview monsieur Ndir ñu ngi lay nuyu. waaw ah, maa ngi laa nooyu ah, njoon jiital sant yàlla ma borom ba màgg bi ba kawe bi ba tedd bi. di la gërëm itam euh, euh, Souleymane mi organiser tournoi bi di la nooyu ñi no sétane ñep wa xam nga tournoi bi légui mo am euh, ñaari at bi mool deuxième édition bi donc fraternité sport la la de yeen Dialaw fraternité sport alors Souleymane organiser que mom modi président zone bi mais mom si boppam dafa organiser tournoi bi mu nek tournoi ba xamantene da dajalé fukki équipe ak juróom-benn daanaka jaraaw gépp bokk si alors euh, ñu soxle woon ka ñu jàppale te itam xam nga ñun ah, loolu moo di suñu wareef ah, war nañu yëngatu ah, même bu fekkee ñun yëngatuñu war nañu fekki ñu mel comme ñoom Souleymane jàppale leen si yi ñuy def Euh, man nag affaire sport daanaka bon affaire nawetaan yi li du guléet man man na maa fàttali ne bi ma amee ñaar fukki man maa nekkoon président euh, ASC Eten bi ma amee ñaar fukki at bi ma amee ñaar fukki at ak ñett defe kaw dinañu la ay mayo mayo vert blanc noir boobu maa ngi am 23 ans man yaay maam seer yobbu bon affaire yi nawetaan mas na saa ya nekk yu jiitu politique la ah, saa yu ma ko manee dinaa jàppale ñi nga xamante ne daan nañ ñëw si man mais particulièrement bon ak Souleymane nag moom ma rakk la moom xarit la ma wóolare la itam kon bu ñëwee si ñun alors du ñu man lu dul jàppale ña parce que jàppale ña itam moo di jàppale jaraaw gépp waaw ah. waaw xam nga xam nga social moom ala wareef si noonu ndax lii tax mu la wareef moo di mu boroom ba tedd bi ba fekkente ne dala teral la ëppal yu soxle dala mel ni moom laak man ah, mu borom ndax dogal xam nga loolu du ngóora du dara ah, loolu si dogalam ma borom la man bi ma amee ñaar fukki at fekk na ma la liggéey yi employé fukki nit tax ñaar boobu ba léegi maa ngi am yàlla dimbali ma tuuti alors euh, bi ma amee ñaar fukki at boobu na ñaar fukki at diggante ñaar fukki at ak ñaar fukki at ak benn farga na ma juróom ñett fukki gaal ak ñett diggante todd ak ndita boobu maa ngi am ñaar digante ñaar at ak ben ak ñaar fukki at ak ñaar waa yéen ñëpp man see teg teg ñu fekk na ma ay ay kër yaa xamante ne gaal amu fa woon dara amu fa booba ma ne amuma ñaar fukki at ak ñett xam nga loolu yàgg na loolu ëpp na fanweeri at man bay soxla dëkk bi i jóge faa ma nekk i ñëw i ne dama dama dimbali nit ñi gàddaayuma dëkk bi itam ragaluma ñaan ragaluma soxle li ma si man nag din ma ko def te loolu ma saa def du ma ko bàkkoo kenn mësula dégg ma jéem dara i langi géwél wala seet ka ma ko waxal waaye def naa ñëpp mën nañaa seede li ma man baa ma amee ñaar fukki at ak benn ba léegi maa ngi si te loolu nag wareef la war wax na ma la sànq ma ne la ah, bala yàlla may junni amaana ba dala lekkaloo bala may fukki junni dala yorloo ak njaboot waaye bala mayee ay millions da la séddale loo du dëgg ndax ay millions kenn nit mënu kaa lekk génn kër mënu lekk donc am na wërsëg waa xamante ne ba duggee si sa loxo moomu làkk sa borom daka jaarale si sa loxo war see sédd ñenn ñi man noonu ma jàppee àddina waaw. wax nga ko eh, eh, toogoo ba soxla ba soxla dëkk bi di leen jàppale ci foofu noonu dañu dugg si wàllu politique yow ban ban kii nga àndal ban parti nga àndal wala mouvement la. waaw ah, nun nag li ñu wax ren. dañu wax nu ne dañu bëggoon nu jël parti yi ak par yi in tekk nale in def jalaaw yeen mu di nu parti ñii for PDS ñii for bés du ñii for AFP ñii for réew mi ñi fowaay waay for dañu jàpp ne fi mu toll nii jalaaw moo soxle boppam ndax ba nu ko xoolee ba sa biir lii xew fi mu toll nii si jalaaw ak lii nar a xew ko huli lin dok si ginnaaw si pôle huli por yi la huli coow yi am yi am duga rek bërka demb xam jalaaw dax jëm diggante ba doya doya doya doy waar soxle ka ka taxaw bon doomi jalaaw yi waratuñaa in la in la parparloo ñépp dañu war a ñëw nu ànd ñi jël parparloo yi in tekk in jël jalaaw njël yeen mu di parti fi mu toll nii daanaka man si taxawaay boobu la ma taxaw partiwu ma dama oote ne daal nanu fexe nu wayloo in doon benn waaw mën naa kaa bañ a tuddee convergence mais mën naa tuddee itam convergence ndax convergence bonul woon ah, baanu saa dem daf fekkoon nu nekk nu gën a nekki ndaw waaye xalaat ba xalaat ba baax la woon du dëgg léegi nag du tunu ay guni ay mag lanu ndax ah, olof yi dañaa wax ka noppee nekk ab guni nekk ka mag waaye nekk ka mag cible bu ndax yombul waaye xam naa ne mag mag ma am juróom fukki at la toppa duutul ab guni te itam liin yor ñëpp xam ne ne man nañu kaa yor na na gën nii mu mel waxuñu ne dañu gën a dañu gën a dañu gën a man ñi fi nekk dañu ñu gën a xereñ wala gën ñaa in gën ñaa ay waaye noo ñu gën a bëgg lu dëgg xam naa nit laa ko gën a bëgg man naa see def laa xamante ne moom manu ka xam naa dëkk manu laa la wax ban waxanteeg dëgg rek rek rek rek rek kenn manu la di farab dëkk si samdi ak dimaas ab dëkk baa fa dëkkule la dul àjjuma samedi dimaas mënulaa kaa defar bon man ren jii dama bëggoon nu politique politique baa xamante ne du ànd sànni xeer ndax lii fi nekk quand même ak nit fa mu def fukki at ak juróom-ñeent ba ma ne xam na ba tëlee xam na mais ma ne euh, waa Jalaaw ñii fi nekk bu fekkee mën naña waa xam xam nga fi mu toll nii wax dëgg yàlla fukki at ak juróom kenn du laam-laamee li bañ a manee nit ñi gis na ka bañ a tëlee nit ñi gis nañu ka léegi nag xam naa politique politique la am na yaa xamante ne ay naxee ya mel noonu la waaye fi mu nekk nii xam naa daaw indi ne woon daa am mbas dara xewul boobu la ñu ëppoon ak jot fuuf ba fekkoonte ne di fa rekk la bi stade yi tëjee amul football amul dara liin la difar nii si ñaari weer ñoom amoon nañu am am nañu depuis juróom ñaari at a ngi mënoon nañu kaa defar du dëgg boole encore ah, yooyu ñaa wax noonu stade boobu noonu am na yëkk yëkk gën a jàmp subvention bi mairie bi la jox ah, ah, no subvention bi bi mairie bi la jox footballkat yi fukki junne juróom-benn man damaa joxe la ëpp loolu baa ko dajalee moom li moo joxe mairie bi yëpp li moo joxe matul un million man damaa joxe la ëpp loolu at ma nekk du dëgg. est-ce que loolu loolu am xel mën na kaa jàpp ñii nekk ci taekwondo bi ñii la basket bokkuñu si sport te koppar yi nekk si maire yi dañu si bokk xam nga bon ah, bon léegi ñëpp yeewu nañ xam nga yi li li nekk yeen wax dëgg yàlla surtout si sport bi def la ko la ko gën dax yomb ba demee ba dëkk yi gën a àlle la jàppale ñey zone bi yëpp zone bi a structure bépp mairie bi yenn juróom benn fukki junni la kaa jox par at xam naa ne loolu am xel mënu kaa jàppa d'accord yooyu noonu lanu bëgg alors nu jële ko fi ña nu fexey nit ñi jàppale nu nu aw ñii fi nekk waxuñu ne mënuña waaye dax mel ni dañuy xaw a lott xam naa xam naa baa def fukki at ak juróom-ñeent daxaa la xuur daxa dem ba say yax da la sa lépp da la baa léegi ba amee nijaay yaa xamante ne ndax dema dema dem ba retraité wala jarbaat ba ba baax ndax kaa wax toogal u futahu u dem si tool yi u liggéey du dëgg fukki at ak juróom-ñeent wax dëgg yàlla nañu nu abal ba ko defee si jàmm ak salaam nun nu jéem leneen te li fi nekk wax dëgg yàlla def fi la tane jafe ñu lool liggéey ba kenn du ko du ko ragal man dama li euh, ma war def si ma àddina am ak njaboot ay la yéwén jàpp na ma ne li ma man def na ma ko léegi dama bëggoon a jël euh, juróomi at mbaa fukki at yaa xamante ne dama kaa may jalaaw li problème yi la bare bare lépp nun waxuñu ne mën na noo régler lépp mais def xam naa euh, lébu yi dañaa wax ñu ne kën a yàcc ñëpp ak man du dëgg li fi nekk dana yàcc jéemu ña yëngatu ña defuñu dara def fi la la tane li ñu fi def yomb na dëgg la problème yi bare na waaye problème yi du man maakaa réglé man ak waa Jalaaw comme ni nu def journée bële passé dana oot ñëpp d'accord in oo ñi xamante ne am nañuy pexe yi in am ñi xamante ne am nañu bopp in oo ñi xam ne am nañu alal du dëgg budget bii nekk yeen yomb yokka waaye ba fekkente ne daal tëdd ndakaaru ba samedi su ñëw doo xelaat yooyu artiste yoo la wax noonu guni yi la def taekwondo dem ba championnat du monde jëli ñu jaru ñaa dimbali si ngelaw li lañaa ñaa entraîné xam nga yooyu noonu dafa jekkul sax nekk parmi les des équipes yi nga xamante ne Sénégal si équipe yi gën a naw la ñu bokk ñii la def basket d'accord mais jéemuñu si dara ba ba fe waxuma régler ka mais u jéem sax ña ne ay la yéwén ah gars yi jéem nañu def nañu li ñu man waaye ba jéemulee dara dara dara une yàcce ne yàcce ne yasar ka nekkaa la man wax euh, bon support port bi duma si wax la bare xam naa la tax parce que man si si lolo la gesu, si lolo la maa liggéey te am na laa xamante ne dama kaa dencal nit ñi xam man ban waxanteeg dëgg léegi mu am juróomi dama don tanta, tànta nanu kër baay mbéygéey ñëw ngarub kaw dem njangal tànta wax poor yi ñoom ñu oote fii si maire bi in ne fen loolu dug dëgg fekk na fi waa yéen ñëpp at si ginnaaw la nu waxoon loolu yeneen yi gën bon yooyu ya nekk si ginnaaw yaa xamante ne bëgguma kaa wax si télé bëgguma kaa wax kenn dégg ka waaye daal li ma bëgg nit ñi jàpp ka moo la am xew jalaaw man ba ma nekkee maire du fi xew wala in dama tëj xanaa si ma ginnaaw laa xew mais ya mel ni ma jox la ya xew kel in ñëw a ñëw a ñëw kaw tali bi ne dakaa jël in dakaa jël ba boobaa dama takk ma séentuur ak maire oto gendarmerie bi ñëw jël ma ma ba pare ñu soog continuer waaye ba problème amee u daw mu u kilifa ga du met du def noonu ak ay nit bañ a jiite daxaañaa utau bañ a soxlee utaaw du dëgg port bi li si xew port bi mu ngi njoo ngëb ñëpp xam ne ka barka dem ba na ma laaj maire bi mu ne du si wax waa ba si waxulee ka wax men ba din ma nekk maire u ñëw fii ma wax la lan la def ne nun waxunu loolu waaye nun kenn duñu defi doxandéem suñu biirab dëkk ba port bi la am njariñ nun laa jariñ du ñu jël nu suuf jaay nu doole yàq nuy teeru yàq nu géej ba pare jël njariñ la jox ko doxandéem yi ab dëkk ba tolloo diggante kilifa moo kaa aar kilifa moo la taxaw aar nit ñi yeen ba nu waxanteeg dëgg baa mu ñàkkee kilifa yàgg na kilifa si dëkk mënu faa ñëw samedi dimanche mel ni touriste yi d'accord ba dëkk bi soxleen du ko dégg ba dëj yi amee mu dajale ñaar dajale dajale ba samedi mu ñëw jaal yi fàtte yi ba nit ñi soxle kenn du ko gis du dëgg yooyu noonu ma ne yooyu la ñu bëgg si jàmm ak si salaam ji àndul jenn coow nu fexe dëkk bi in tekk si loxo in tekk si njub waaye itam mu nekk njub gaa xamante ne Yermande da kaa lal ndax nit ñi baa ñu jiitee te Yerem laa ñu doo Yerem dimbali yërëm gune yi yërëm jigéen ñi yërëm jàngkat yi saytu nun si loolu la ñu oote si jàmm nyep si salaam in bëgg nag ñëpp ñëpp la ma wax ñëpp nañu loxo képp dëkk yeen ne amna na laa andi tàllal nañu la loxo ma profité si sab antenne bi lancé waat un eh, appel ma nijaay Mass Mbengue na ñëw nu anda ndax ba fekkee di far bi la rekk jarul hulo jarul la xëccoo di far rek ba fekkee ñun di rek la nu oote war na noo mën a ànd ay la yéwén nu la tàllal loxo ñépp in la tàllal loxo in la loxo du in la loxo ñépp la nu bëgg bi yoon nu in fàtte boppa in taxaw jalaaw ba pare ba nu fi jëlee li fi nekk ba pare ka nekk mën naa bersalang ak boppa du dëgg njoon lii rekk la baax na ngeen nooyu leen sante Souleymane ndax itam ah, ak yëg la lii mu def nii ah, tuddee ma bés ba day nii fukki équipe ak benn nekk si Nyakulnya ña ñoom que ñu ko tuddee bon ba fekkente ne dama dëkk ak ñoom i la ña mag ñe tuddee ma bés bi dama ña kaa sante aw itam ma di la sante bu baax ma rakkalaal su maram njoon maram du la ma sante leen bu baax i encouragé leen ndax li ngeen la def am na solo ma nooyu waa jalaaw ah, i wax un dernier mot moo ne mbokk gi nu bokk nun waa Jalaaw moo gën a foor politik du dëgg politik jaru la noonoo politik jaru la xiiroo ndax itam ah la mën a nekk politik bi dala jée mbokk gi des fi nanu ko sellal in xool ni nu kaa defee te bii bi yoon defe naa ay léwéen jarul jenn coow ndax ak nit quand fa mu des fukki at ak juróom-ñeent ba nekk abalaatel yomb na waaye ba mu ànd benn coow loolu daal la ma doon tëje waaw. ok ñu lay sant di. yi ma boroom yàlla ma màgg mi ma tedd mi ma baax mi jërëjëf Ndiol. Souleymane maa ngi lay nuyu di la gërëm di la sant di nuyu jalaaw gépp di wax ne tournoi bi maa ko organisé dajale si jeunesse su jalaaw gépp pour ñu foo. dajale dajaloo ci terrain bi football puisque mooy sen passion loolu c'est à la suite euh, ba bi ma falé ci présence sous zone bi bi mu amé jeunesse ñu bari ci jeune yi dañ ma doon solliciter ci loolu parce que nawetaan amul daw affaire bi nek euh, un vide ci ñom ñu solliciter après ça ma toog xalat ci defoon première édition mu amone un goût d'inachevé ma defaat deuxième édition bi. bi mu amee ñu joué ko ba ci final ma toll woon ci kare njàqare mooy am woon ku ma pare dublu mu daw mais tiituma njàqare ak tiit du benn nag njàq amoon naa mais tiituma parce que man bok bu tiit booloo ma ko sama vocabulaire yàlla dogal ma dajek amet expliqué ko mu ne ma aucun souci ñëwal sama kër loo bëgg nga wax ma ma jox la ko mu ne lan nga soxla ma wax ko soxla grande somme mu génn ko teg ko si suñu loxo pour ñu organiser final bi ñu jëm muy dimanche incha allah diggante JT Ndiangal jeune talent de Ñangal ak US la tournoi bi nak regroupé won 16 équipes bu yo xamné ne de Todde à Toubab Dialaw en passant par Dagg dëkk yépp participer nañ ci mu nekkoon un grand tournoi au niveau de Yène un tournoi de prestige parce que football nañ ko ci jamm nit gañu fa nit loru fa alhamdulilah sant nañ ci yalla bu baax waaw sant nañ ci yàlla bu baax bi ñu tolloo ci final nag ñu ñëw wax ko Ahmed daal mën nañu lu ngeen bëgg lépp wax leen ko ma énuméré ko samay besoin yëpp mu ne ma loolu ci passe ma jox la li nga soxla bu ñëwee mu yëkkati une grande somme une grosse somme même mettre à la disposition de la jeunesse